fii la dëkkoon fii ci ministère de l'intérieur fi la baraagam nekkoon bi nu koy toxal yóbbu ko Médina tudde ko avenue El Hadji Malick muy avenue bi séparé plateau ak Médina moom moo tudde quartier Médina Médina Médina Touba Soul euh, fii la daan doxee tànkam di dem ci zawiyam bi ci avenue du président Lamine fii itam ci ministère de l' li ëpp ci liggéeyam digganteem ak borom moom fi la ko defee. te maa ngi fàttaliku sëñ Cheikh Tidiane Sy mës naa ko dégg muy tooñ le ministre Jean Collin bi mu fi nekkee di ko wax ni ko da nu waroon abal benn pantere ci ministère de l' bu ñu amee soxla ñëw fa ñaan sunu soxla ci pantere bi ndax xam héritage spirituel bi fi Cheikh Hadj bàyyi kon. ñu sant la yow le ministre de l'intérieur ak ses collaborateurs ndax permettre nga nu ñu dellu si fi def ci pèlerinage te ñëwit ressource wu parce que fii li fi nekk ñun xam nañu lan la waaw ba tax na bu ma koy faral di bind damay wax ne c'est c'est le cerveau de l'État ici le ministère de l'intérieur ñu ñëw fi tey ci turu xalifa Serigne Mbaye Sy Mansour li mu waxoon itam teew déglu leen ngeen doxal la ngeen doxal yépp dégg nañu ko ñetti point rek laa su lu ñëwoon Pape Sidi Ahmed mi wax na ko maam Ousmane ak ñi mu àndal wax nañ ko muy problème mu ndox problème mu électricité problème mu assainir defe naa ne techniciens yi fi nekk kenn ku nekk la tey sa responsabilité def nga ko te mooy nga jël ci ay note seet lu baaxoon ñu continuer ko lu baaxul ñu pexe ba mu baax loolu tabarakallahu ñu ngi leen ci sant bu baax gàmmu événement la boo xam ni sëñ Cheikh Tidiane si dafay wax ni ku ma dégg nga ni maa ngi seetaani gàmmu gi ma mere la parce que xamoo lu tax ñuy gàmmu lu seetaan rekk a tax waaye dafa am lu ñu ciy defar ci wàllu jikko waaw euh, te te boo ko seetee di nga xam dimension nu mu toll apal la alal akwaani wal xalqu tanfuru hilaalun raahu lmuslimuuna fa kabbaru allahu akbar ci yonent bi moo tax ñàkk fayda baaxul waaw buñ lay jaam nga nga nangu ko mais kaw mere la parce que yàlla defu la jaam yaa ko def sa bopp événement yooyu nag moo waraloon mag ñi sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir ak ci biti lu ñu rafetle rek sédd ko ko gàmmu ci yi Cheikh Al Hadj Malick sédd yonent bi la bokk ni rek bu sañoon bu jotee bu koy def képp ku mu am nga jàppale ko ci yéen a ngi ko ci jàppale yàlla yàlla defal leen leer ci barkeem may leen tabarakallahu defal leen wér li gën jafe ci jamono bi yàlla defal leen ko ci biir yàlla defal leen ko ci biti yàlla jàppale leen it ci barke yonent bi ak leeram